وعندي عمر jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp ngeen ci ànd ak al ustaaz abdallah baaba dieng mu ci feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bi mën nga yónnee sab laaj ci numéro whatsapp bu fatawa rajo leeral fm numéro bi di 78 179 27 59 78 bi képp yónnee sab ci whatsapp bi dinañ ci jot jërë ngeen jëf kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine تكفيني نشرت تعاليم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم mbokk yi ni topp ci suñu durusul fatawa ñu di ci ànd ak suñu mbokk Cheikhna docteur Mohamed Ahmed Lo ci fii ci rajo Leeral FM fii ci Louga ak Salam FM ca mbakke ak Keppaar ci kawlax leeral ca Ziguinchor ak Podor ak fépp fu ngeen mën a nekk ci àddina bi di ñu suivre ci buumi jokko yi ci xarala yu bees yi fu ngeen mën a nekk ci àddina bi da ngeen mën a topp duruusal fatawa eh, kon tey di àllarba di fukki fan ci weeru avril deux mille ñu fas yéene jàkkaarloo ak docteur Mohamed Ahmed Lo ci laaj yi nga xam ni moo fi rot si ñu fas yéene ko gaaral mu ubbee ci jaami yàlla yi kon Cheikh na ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak auditeurs yi ñu tàmbali laaj yi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 wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmaina amma baadu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi déglu ak fépp ngeen mën di nekk noo ngi del siwaat ànd ak yéen ci jotaay bi nu bokk mi jotaayu alfatawa di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq ak ndimbal ak yërmande te nangul nu sunuy jaamu yàlla ak sunuy ñaan ñuy dalal di tatagal ci jotaay bi sun gan gi di euh, Cheikh Makhtar Fall mi nga xam ne moo fas yéene euh, méngoo euh, posé question yi muy laaj seen laaj yi mu jàngal leen ko ngeen dégg kon Cheikh Makhtar gannaaw buñ la nuyoo nuyu kii nga feggool ci xarala gi bismillah jazakumullahu xayran laaj bu njëkk bi Cheikhuna mooy kii dafay laaj ndaw soo xam ni dafa doon sëy ci barab ba yàgg mu fay jël ay bagaasam génn néegam dem muy laaj nag ndax waa kër gi am nañu sañ-sañu jariñoo néeg bi bu fekkee ni soxla nañu ko Euh, waa kër gi de liñ ci jublu mooy boroom kër gi maanaam ki nga xam ne moo moom këram mu yor soxnaam kooku nag su fekkee soxnaam daa jékki-jékki dem ci lu dul ndigalam ndax fay mooy loolu fay mooy jigéen ji nekk ci néegam ba mu yàgg mu xëy dem te tàgguwul boroom këram dem toogi seeni seen kër ngir mer su fekkee lu mel noonu la nag boroom kër gi mooy nattale ndax tey xalaat ni kii dana dellusiwaat wala du waat wala nu muy def wala lan la bëgg a fajee loolu yi ndaw si def su fekkee ne dafa daal di bëgg a jël néew bi def ca leneen itam su boobaa kenn du ko ko tere ndax mu moom këram te ki fi nekkoon daa abandonné kër gi dem yoonam su fekkee lu mel loolu nag moo xam day takk seneen soxna daal di ko fay dugal wala dafay dugal ay goneem wala dafay dugal bagage moo xam këram la akum néegam soxnaam nekkoon fa soxnaam dem na yoonam. Eh, moom moom ab néegam daal lu ko neex sañ na ko caa def ci lu dagan wallahu taala alam jazakumullahu xayran cheikh na eh, kii nee na dafa ñëw ci jumaa ji ñu toog di xaar ilimaan waaye ilimaan ñëwul naay ba moo ñëw ki nga xam ni nag mooy doon noddkat bi bi mu jógee di bëgg a nodd gis ni naay bee ñëw mu daal di toogaat bañ a nodd ñu toog ab diir bu yàgg kenn noddul ah ba ñu dégg jumaa yi dend ak ñoom ñu dégg ñuy julli nee na moom mu génn dem julli ji ca jumaa jooje nga xam ni moom ma ngay julli muy laaj nag ndax génn googu mu génn ci jàkka ja ndax loolu la waroon a def wala daa waroon a toog rek di xaar ba ba ñuy nodd imaam julli loolu yi muy laaj di ndax wax ndax euh, biñ gisul jenn imaam mu génn dem julli ji ci jeneen jumaa ndax loolu njaadu na walla déet laaj ba fam tàmbalee mooy naayib ji bi mu te nar a imaam bu fekkee ne daa yéeg ca minbar ba toog waaja jóg di bëgg a nodd gis ne naayib jala mu daal di toogaat loolu li muy wane rek mooy juuyoo yi nekk ci lenn ci jàkk yi ak ñàkk benno gi ci nekk ak noono gi ci nekk dafa mel ni jàkk yi politique ak ay opposant ay allié ay coalition ki nekk ci biir politique bi yëpp daa mel ni daa nekk ci biir lenn ci jàkk yi xam nga ne kooka euh, noddkat boobee la mu def du yoon waaye la wér mooy su fekkee ne naayib ji bi mu ñëwee daa naroon a wuutu imaam ji ci xutba waa jóg bay bëgg a toogaat mu toog lu yàgg moom ci minbar bi gis ne kenn noddul la doon fulla rek mooy jóg daal di xutba xutba bu noppi wàcc julli loolu rek la waroon a def ah toog nañ ne ne xam ba yeneen jàkk ya taxawal nañ di julli loolu yi waa ji laaj ndax moom sañ na ko moom kay ñëpp noonu lañu waroon a def ñi ci jàkk ji ñëpp dañoo waroon génn dem ci jàkk ya julli ji bàyyi fa naayib joojee toog ak noddkatam boobee ba xam ñoom ni ñuy def loolu rekk moo ci waroon na sos ala kulli xaal mbiri jàkk yi moom lu ci bare bëri aajo na lijjantiwaat aajo na reklewaat aajo na defaraat wallahu taala alam jazakumullahu xayran mbokk mi dafay laaj mu ni ndax liggéey ci banque boo xam ni dafay jëfandikoo ribaa ndax dagan na ci ab jullit walla déet alhamdulilah mbirum liggéey ci banque laaj la boo xam ne jaar na ci fatawaalu bare bari ñi nekk ci banque di ca liggéey bu fekkee banque riba la bokkuñu ay liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa lim ab lim ci nit ñi ñoo xam ne yàlla rëbb na leen ci lu aju ci wàllu riba jiital ci kay lekk riba teg ca ka koy joxe ñu koy lekk teg ca ka koy seede teg ca ka koy bind ñooñu ñëpp borom bi tabaraka wa taala bind eh, rëbb na leen kon nag fekkee ne nit a ngi liggéey ci banque bi day xool moom fan la fa toll ndax ki nga xam ne ab liggéeyam mooy day bale ci misaal kooko wax dëgg yàlla yoonam nekkul ci riba ki nga xam ne lay liggéeyam mooy entretien courant ba euh, wala assainissement ba wala la nga xam ne moom lañ aajowo plomberie wala yu mel noona ñooñu jotewuñ dara ak riba waaye ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci biir ordinateur yaag système yaag mbind maag yu mel noona ñooñu ci boppam ñi ngi dimbali ñi nga xam ne ñooy organiser riba bi ndax banque day riba boo xam ne dañ koo organiser ki ñëw di liggéey am lu muy def lañ seq ak moom weer dee ñu fay ko weeram ci ab liggéeyam kooku mu ne su la wax ne day lekk riba waaye nag biir système bii mu nekk di ci liggéey ji boppam mu ngi jàppale ñi nga xam ne dañuy liggéey dañuy defar dañuy lekk riba loolu moo tax foofu dañuy wax ne li gën su fekkee ne dangaa bokk ci ci xuus dëgg dëgg ci di ko liggéeyee bokk ci ñay bind wala ñay témoin wala ña nga xam ne ñooy lekk wala ñuy joxe ñuy lekk loola liggéey la boo xam ne bu garaaw la ci ab jullit ndax di liggéey ci loo xam ne ñu ngi lay rëbb loolu moom sori ko ala kulli xaal moo gën ñeneen ñi ci nekkit te àgguñu ci loolu dañuy wax ne béréb boo xam ne lu mel noonu lañ fay defar nga xam ne lépp daanaka boo ko toppee ba ca fin ba riba bi def ci ni xas la gën ci jullit mooy bu cay liggéey te amagul feneen it na continuer di wut feneen ba ca koy am am na ay société yu fi nekk yoo xam ne lekkuñu riba joxewuñ kenn di ko lekk euh, ay banque ngi fi sax yoo xam ne ay banque islamique lañ wala ay fenêtre islamique xool ci yeneen i façon yoo xam ne daal yi bokkut ak yooyu la moo gën ci jullit naam jazakumullahu xayran cheikh na euh, kii moom dafay laaj mu ni dafa dégg ñu ni jigéen bu amee ñeen fukki at ëmbaat doom dafay nekk danger ci moom walla ci doom ji mu ëmb mu dem ci benn euh, gynécologue boo xam ni xam-xamam dafa màcc ci wàll bi mu laaj ko mu ni ko waaw waaw wax nañu dëgg waaye loolu dalul xelam mu dem ci keneen koo xam ni jàpp na ni kooku moo ëpp xam-xam ki mu jëkkee bi mu ko waxee ba pare kooku ni ko pour quoi pas maanaam ndax euh, loolu lu ci nekk maanaam lu tax loolu mënul nekk mu ni ñaari wax yooyu nag salfaañoo waaye kooku da ko cee tegal ni ko ñaata doom nga am mu wax ko ko mu ni ko loolu doy na muy laaj nag muy fi mu toll dafa jaaxle ndax keeku jëkki newoon na ko ëmb bi danger lay doon ci yow Eh, waratuloo mën a ëmb kee ni ko lu tax waratuloo mën a ëmb waaye ci biir laaj bi mu laaj ko ñaata doom nga am mu wax ko ko mu ni ko loolu doy na mu ni li moom daal jaaxle na nan lay def ndax dafay arrêté am njuram walla dafay bàyyi rek lu yàlla def mu xam ni loolay la gën alhamdulilah eh, xam naa ñaari doctoram yooyu day Mm, kenn ku ci nekk lim wax aaja na seetaat ndax ki ko wax ne ko su xasee am quarante ans su ëmbatee mi ngi ci danger loolu moom nekkul ab règle générale su fekkee dafa seet nit kii toog fi kanamam daal xool wér gi yaram ak ak léppam ba noppi ne yow yaa ngi toll ci âge boo xam ne fi mu nekk nii eh, boo ëmbatee danger la ci yow loolee xam-xamam won ko ko loolu kenn du ko weddi waaye nag ab règle générale boo xam ne day wax ne jigéen ju am quarante ans ju nekk loolu moom wérut ndax nit ñi seeni wér gi yaram bokkut euh, seeni nature sax bokkul kenn ku nekk ak la yàlla may am na ñoo xam ne danañ dem ba juróom fukki at sax am doom te dara du leen ko wàññi du wàññi dara seen doom loolu gisees na ko kon nag euh, foofu ab règle bu ñuy wax kooku daal nekku fa euh, na xool wér yaramam moom rek su fekkee lu mu àttan la baax na su fekkee àttanatu ko nag mu wéyee la nga xam ne moom la ko boroom xam-xam wax amma kii eh, weddi wax ji ka ca wax ba noppi te jàpp ne mooy képp xam-xam ba noppi wëlbatiku nag laaj ko lim am ci doom nu mu toll mu wax ko ko ne ko loolu doy na loolu itam erreur féetewu kaw ndax li doy moom suñu borom tabaraka wa taala moo ko xam jigéen ci saa bu demee ba nga xam ne lim jur doy na sun borom tabaraka wa taala ci bopp moo koy arrêté maanaam lam doon gis nga xam ne ku koy gis ku nekk war nga ngaa mën a ëmb loola la duutul gis kon sun borom moo xam lu doy waaye yow moom xamoo lu doy euh, mi ngi ko teg ci xalaati planning familial yi nga xam ne ay plan la rek ñuy séddale nit ñi di ko def ci seen bopp ñi di ko jëfandikoo waaye nekkut loo xam ne lu dëgër la jooju wax moom desu ko téye naam jazakumullahu xayran cheikh na kii dafay laaj mu ni moom daa am eh, ab terrain boo xam ni da koy luye am société bu ñëw bëgg ko luye waaye bokk na ca lañu fay def mooy jaay ak jënd waaye dañuy jaayaale sàngara ci biir liggéey boobu muy laaj ndax dana dagan ci moom mu luye leen terrain boobu walla déet. alhamdulilah luye nit ak place boo xam ne jaay sàngara la koy la koy doye wala ma nga fay jaay sàngara loolu moom jaaduwut ki yor ay location di luye barabam yoon may na ko. mu bind benn contrat boo xam ne yam fay bañ yépp da ko ciy bind kon jullit bi jaadu na mu bind ci contrat ne fii diis bi jaay sàngara diis bi def nangam diis bi def nangam diis bi def nangam ku dikk liir contrat boobee ba d'accord ci mu luyee la ko ku ca d'accordut mu bàyyi la nga dem seeti keneen loolu rek mooy li jaadu waaye diisul luyee nit bi rek mu di fa jaay sàngara wala mu di fa carte wallahu taala alam euh, cheikh naa kii dafay laaj mu ni ilimaan a ngi nii joo xam ni dafa julli jullik ñeenti rakka la woon bi mu yeggee ci ñetteelu rakka bi nag mu toog di taaye maamu yi sàbbal ko mu jog fekki leen bi mu sëlmalee mu sujjóot gannaaw bi mu sëlmalee kii nag day laaj mu ni ndax noonu mu def noonu la walla déet ndax moom nee na moom miy laaj nee na moom su jootul ànd ak moom muy laaj ndax lan moo ko war moom itam moom mi nga xam ni su te imaam su na alhamdulilah moom mi laaj day def na njuumte ndax boo àndeek imaam gis mu def loo xam ne gis nga ñëpp ànd ak moom def ko danga war a def boo ci jógee nag bu sa xel dalut nga door laaj fu mel noonu rek lees mën a defee ba noppi door di laaj waaye su dul loolu nit ki daa war a door a def ala xaal loolu yi imaam def noonu la ndax dafa sëlmal ci ñetti raka biñ ko sabbaalee mu dolli ca beneen kon ak julleem daal nay mat sëkk waaye ëpp sëlmal dolliku na ca ginnaaw daa yokk nag ci julli gi wax ju dëgër la ñu wax ne day sujjóot ba'da salaam moom bi mu sujjootee baada salaam muy sujjoot boo xam ne gannaaw bu la moom daa waroon a sujjoot moom su sujjootul ànd moom nag na jàpp na ak julleem moom ala kulli xaal am na lu ca manqué mooy eh, sujjootu baada salaam waroon na ko te defu ko borom xam-xam yi nag ci téere fiq yi dañuy wax ne sujjootu baada salaam moom du faat saa boo xamee ne borom fàttaliku na ko eh, rek mën na koo def. nekk sax ne walaw ba'da am doonte day dem ba matum at sax loolu nag waxi comme xam-xami fiq yi la gisuma ci xadis wala lenn lu koy tegtale waaye ala kulli xaal moom daal lam def du noona wallahu taala alam jazakumullahu xayran yal na yàlla fay la yiw ci tontu bu leer boobu mbokk mi dafay laaj mu ni moom dañ ko invité woon ca Siin mu war faa dem waaye ñoom ci seen aada buñ lay invité dañ lay yónnee li nga xam ni mooy li ngay waajee ak euh, li nga xam ni mooy sa euh, mukafaa maanaam sa perjom nee na ñu yónnee ko ko waaye bi mu defee ay formalité am dem ci ambassade ba euh, ñu bañ koo may visa mu jokkoo ak ñooñu xamal leen ni moom kat mënatu la ñëw kon xaalis bi ñu ko yónnee woon ndax daf leen koy delloo walla déet nee na ñu yónnee ko numéro ni ko na ci dugal xaalis bi mu dem banque wax leen ko ñu ni ko ñoom nañu bind leetar wane ni ñoom ñoo demande récupérer xaalis bi mu bind leen wax leen ko waaye tontuwuñu ko boobu ba léegi nag xaalis baa ngi ci loxoom muy laaj nan lay def xaalis boobu ndax mën na ko jariñoo wala déet alhamdulilah kooki li jëflante ñooñe ci bitim réew day te ñu newoon ko xaalis mu bëgg koo delloo jàpp naa ne xaalis bi ginnaaw mi ngi ci loxoom te mi ngi ak numéro compte bi nga xam ne ci la ko war transféré jàpp naa ne loolu moom munta të su demee ci benn banque mu gantu na dem ci beneen bu ñàkk banque boo xam ne dana ko ci mën a transférer mu jàll euh, ba tey su fekkee ne seen lettre boobu mënta ñàkkit su bindee tontu wuñ ko na continuer bindaat rek na continuer bindaat nam doon def bay jokkoo ñoom itam bu laajee wax ak ñoom ci téléphone wala ci loo xam ne dalay mën a ñoom fexe ba seen alal jooju ci ñu mën see jotaat su fekkee amut it nag la muy mën rek mooy garder alal ja ba ba koy mën a yónnee mu door ko yónnee waaye ala kulli xaal moom jàpp ma ne ma ne transfert luy tolloog lañ jox képp ci ay neexal ku war a ci ab conférence wala yu mel noonu defe naa ne warta doon luy jafe ndax lu mel noonu ñaare moom du doon ay millions yu bari yoo xam ne euh, dañ lay wax ne bala nga koo mën a transféré faaw nangam ak nangam ak nangam naam a xayran cheikhana xafidakumullahu wa raakum Euh, kii dafay laaj mu ni moom ma nga dëkk ca Saalum nee na ñoom <laughs> yàgg nañ leen euh, fatwa di leen jàngal di leen xamal ni leen gerte moom kenn waru ci génne asaka ah moom nag bi muy topp nee na say fataawa di déglu daal lu baree bari ci yoo xam ni da ko daan jëfandikoo nee na yooye mu gis ni bokkul ci li war a def da ko daal di bàyyi muy laaj nag lii ndax asakay gerte mii ndax lu war la walla déet nee na bëgg nañu ubbee ko ci alhamdulilah asakay gerte day lu war la ni mu waree ci dugub daal noonu la waree ci gerte borom bi tabaraka wa taala daf ne yaa ayuha alladina anfiqu min tayibaati ma kasabtum wa mimma lakum min al ard foofu la borom bi tabaraka wa taala gàtt gàttale ñaari bunt yi nga xam ne foofu la asaka di jóge min tayibaati ma kasabtum li ngeen fàggu su boobaa alal ja day dugg si xaalis baag ak jur ga loolu lépp day ànd dugg ci boobu bunt kooku ma ma kasabtu mooy li ngeen fàggu la ca des nag wa mimma axrajna lakum min al ard ak li nga xam ne dañ leen koo génneele ci suuf si lépp lu ñuy bay lépp loo xam ne xeetu mbel la moo xam mbellum wurus la wala xeetu gànjar wala mbell mu nekk sax am ndox mel ne pétrole ak lu nuroog loola yooyu yëpp dañuy daal di dugg si ci wa mimma axrajna lakum min al ard amul wenn xeetu mbéy woo xam ne dana ci génn su fekkee ne dem na ba mat asaka te it ku xam maqaasidu sharia muy sharia li muy yoonal lam ciy jublu doo sikki sàkk ci ne reen asaka da cay ndax asaka li ko tax a jóg rek mooy la yonent ba sallallahu alayhi wa sallam waxoon Muaaz ibnu Jabal ba mu ko yónnee Yaman ña nga xam ne ñu woomal lañ na nga jël ci seen alal delloo ko ci seeni fuqaraaw ki nga xam ne dafa dikk bay gerte am mille tonnes ci gerte nga xam ne kenn xamul nu mu toll ci ay millions nga ne kooku asaka waru ki bay dugub am six cent kilo asaka war ko nga ne kooku asaka war na ko loolu ku ko mën a wax euh, ci fiq li ñuy tudde maqasidu sharia moom xamoo ko wala boo ko xamee it jëfewoo ko kon ala xaal moom gerte ak dugub ak ay légumes ak furweeg lépp loo xam ne nit ki da koy bay saa boo xamee ne dem na ba mat ni saa asaka su boobaa asaka da cay war wallahu taala alam jazakumullahu xayran cheikhna kii dafay laaj mu ni dafa dégg ñu ni imaam malik euh, rahimahullah nee na ci mujjug dundam guddi gu nekk dafa daan gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy laaj ndax loolu wér na bu fekkee ni wér na lan mooy dalil bi ñuy wan ni loola am la alhamdulillah euh, xam naa dalilu di wax ne al imam malik rahimahullahu mu jug dundam da doon def bés bu set mu gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba kañ koy laaj mooy ki ko wax waaye nun loola waxunu ko te it gisunu ko fenn muy wax joo xam ne ju mënee su sukkandiku la ala kulli xaal al imam malik ay téeréem ma ngi fi téere ay ndongaam yi mu doon jàngal ñi ngi fi eh, jàpp naa ne lu mel wax ju mel noonu nekku ci walla nag kii wax wax ji moom eh, suy laajati tey tër lu mel noonu na ne dama ko gis ci téere sàngam wala dama dégg boroom xam-xam sàngam wax ko su ko defee loola danañ mën a def danañ mën a vérifier ba xam loola lu tegu fenn la wala ay wax rek la liñ jàppit mooy ay wax rek la nag lu teguwu fenn ba ba ñuy gis firnde joo ne na kii moom day laaj mu ni moom daal dafa aadawoo bis bu nekk bu jullee gee ba pare day julli ñaari rakka waaye ñaari rakka yooyu bu jàngee fatiha ba pare dafay ubbi kaamilam jàng benn page rakka bu ci nekk day jàng benn page loolu mu di ko def ab diir waaye nag comme bëggul a def loo xam ni euh, dëppoowul ak euh, njàngalem yonent bi muy laaj ndax loolu muy def ndax du dugg ci biddaa walla déet alhamdulillah di julli liggéey ba noppi teg ci ñaari rakka yooyu naafil la yoo xam ne boo koy def da ngay ubbi mushaf bi di ko xool loolu de moom dara nekku ci maanaam dagan na nit ki di naafil la wala muy julli sax julli farata su fekkee ne ak mokkalam àggul ca lam bëgg a jàng lu tol noonu sañ naa xool ci kaamil bi loola du yàq dara ci ak julleem mooy li gën a wér amma lim tànn nag wenn paas woo xam ne moom lay naafila bés bu set loolu itam gisee sut leen nag lu muy wàññi ndax alxuraan la te borom bi tabaraka wa taala dafa ne jàng leen li jàppandi ci alxuraan su fekkee loola moo jàppandi ci moom mu di ko def bés bu set loola dara nekk ci na nag góorgóorlu rek ba bañ a jël wenn paas woo xam ne moom dong dong lay jullee eh, di def bu jàngee li ba léegi mu jàngalee loolu mooy eh, la gën naam. jazaakumullahu xayran cheikhana Euh, kii dafay laaj ma nii moom dafa doon waxtaan ak soxnaam xam naa daa tukki bàyyi fi am diir bu xaw a yàgg muy waxtaan ak soxna si nag ci téléphone waaye ci biir waxtaan wi mu mel ne dafa yëg bànneex ci waxtaan wi ba am lu génn ci moom muy laaj euh, loolu ndax dana ci am bàkkaar walla déet kooki di waxtaan ak soxnaam ci ab téléphone benn waxtaan wi nekk waxtaanu aada woo xam ne rekk waxtaan la faf loola jékki-jékki gaar ko nga xam ne dikkiwut ci sagoom wala mu doon waxtaaniin woo xam ne bànneex boobu yi muy yëg ba dara génn ci moom moom ci boppam moo ko fàggu ci digganteem ak soxnaam ala xaal su fekkee ne dara génn na ci moom mu la war ci lu génn ci nit loola rek koy war su fekkee ne luy waral raxasi gërëb bala ak jàpp balaa julli muy lu mel ni mas yi wala cangaay war ko muy su fekkee ne man yi moo génne ci moom loola rek moo koy war ndax am na ci bàkkaar nag déedéet duñu wax ne rek am na ci bàkkaar noonu lu dul su fekkee ne daa nekk ci koor su nekkee ci koor nag ba noppi fekk loolu moo moo dox ba fàggu ko loolu moom ala kulli xaal kafaara sax daf koy war ay ni moo koy war muy tey teylu di bànneexu ci am ci bëccëgu weeru koor ba man yu génn ci moom kooku kafaara moo koy war su fekkee ne nag la ma waxoon mooy tëyu ko waxtaan la doon waxtaan nii rek loola jékki-jékki gaar ko loolu mën nañoo jàpp ne du ci am bàkkaar kooram mën naa bañ a yàqu ala kulli xaal naam jazakumullahu xayran cheikhana kii dafay laaj mu ni ndax rëbb ci jéeri ji am na ay charte yoo xam ni dañ ko caa charte wala déet mu dëxëñaale ci laaj bi ni ndax dana dagan moom mi rëbb ci jéeri ji muy wut ay comprimé yoo xam ni bu ko seelee ci ndox teg ko fi barab bu rab yi muy rëbb ñëwee euh, naan ca dafay daal di nelaw ca barab ba bu ko defee mu daal di ñëw jàpp ko muy laaj ndax loolu muy def dagan na walla déet alhamdulilah euh, rëbb euh, la cay cosaan mooy lu dagan la waaye nag sib nañ wala xaraamal nañ sax koo xam ne moom da koy fooyee nga xam ne rëbb mi jublu ci wut ak ndawal gu muy jëriñoo waaye da koo neex rek muy rey eh, mala yi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi kon loolu benn tënk la ci tënk yi beneen bi ci des mooy faw ñu bàyyi ci xel wàllu état ndax état léeg-léeg ñu am fenn fuñ baare foo xam ne dañuy wax ne àll sàngam tere nañ ko fa rëbb li tàmbalee waxtu sàngam ba waxtu sàngam loolu ngir aaral leen eh, seen seen koom-koom ca dellu te nag état ba fekkee ne nañ koo jox am réew di ko ko organiselo ay boroomi xam-xam nekk ci ak spécialiste lañ xool ba gis ni lii nañ ko def moo gën ci askan wi su boobaa day jaadu ci askan wi sukkandiku sukkandiku ci yooyu nag su jàllee nag nga xam ne tënk yooyu yëpp dara amu ca nag nga xam ne la fa sës mooy day rëbb moom ngir jariñoo ngir lekk euh, su boobaa may dañ ko mu rëbb si rëbb nag nan lay reyal li muy rëbb ndax da koy fetal ndax da koy sànni aw yat wala da koy yoot ba jàpp ko wala day wut ak fiir wala ak yollu ngar wala nu koy doxale wala loolu yi mu wax sax ay comprimer yoo xam ne da ko koy jox mu naan ko daal di nelaw mu ñëw jàpp rendi su fekkee ne comprimé muy naan doonut luy lor wér gi wér gi yaramuk doomu aadama su boobaa dara nekk ci aw ci rëbbiin yi jamono day dox naam. jazakumullahu xayran seex naa euh, kii dafay laaj mu ni ndax dana dagan ci jigéen bu nammee ànd ak borom këram mu def listixaara ñaan yàlla wala tànn loo yàlla ni ko ànd bii may ànd ak sama boroom kër bi bu fekkee ni doom sosoo ci mooy li gën ci nun yàlla nu ko dogalal bu fekkee ni gënul yàlla bu mu am muy laaj ndax loolu dagan na walla déet ndax fii barabu listixaara la wala déet alhamdulilah nit du dem bay ànd ak borom wala muy ànd ak soxnaam di def listixaara naan suñu ci yàlla naree def li yàlla na lii am suñu nar su def lii yàlla ba lii am déedéet dénkaane yi lislaam euh, ëpp na solo loolu listixaara day doon loo xam ne loo jublu la yow bëgg koo def ci say jëf yi nga xam ne mi ngi ci te lënt na la ngay tànnaloo sa borom la ca nga xam ne yow yaay def wala ngay bàyyi waaye fii moom du yaay def du yaay bàyyi dafa am looy bëgg a def nga ne sa borom ndax lii ma def ko moo gën ci man wala ma bàyyi moo gën ci man fii nag su fekkoon ne eh, bind doomu adama daa nekk ci sa loxo kooku mën ngaa istixaara waaye nekkul ci sa loxo loolu moo tax fañ la santal istixaara mooy kay bëgg a takk soxna wala ka ñuy bëgg a takk bala nga dugg ca labat ga di tontu wala ngay joxe sa kàddu defal sa ci listixaara tànnaloo sa borom su fekkee ne sëy yi ngeen di bëgg a def moo gën ci yéen mu wéyal ko su fekkee gënut ci yéen nag mu xajji ko te tànnal leen lu ko gën amma jamono yi nga xam ne dafay ànd ak borom këram wala muy ànd ak soxnaam moom ku góor ki ñaan giñ leen sant ñu war koo wax moo di bismillah allahuma jannibna alcheytaana wa jannibi cheytaana ma razaqtana ñaan googu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ne su fekkee ne ñaari way dencante wax nañ ko ba ñuy sëy la leen yàlla wërsëgale ci sëy boobee ci doom mu cheytaane du ko mën a yàqal diineem loolu nag mooy la solo naam jazaakumullahu xayran cheikhana kon laaj bi mooy laaj bu mujj bi kii dafay laaj mu nii dafa am ku mu doon weranteel kooka ni ko julli ñaari rakka dong la mboolem julli yi juróom weesuwul ñaari rakka loolu moo rot ci alquran yonent bi itam loolu la daan jëfee ba jóge fi saxaaba yi ñoo dolli ci gannaawam ñetteelu rakka ak ñeenteelu rakka nee na moom xam na ni loolu du dëgg waaye nag li ko jaaxal mooy moom amul benn dalil boo xam ni mën na leen ko jox ba convaincre leen ci ni julli nii la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyee woon nee na loolu daal bëgg nañu dibli ko ci ay dalil yoo xam ni dana ci mën a sukkandiku ba man leen a saxalal ni lii muy wax loolu mooy li am ñoom li ñu wax loolu amul alhamdulilah euh, moom day bu fekkee ne waa ji ko wax wax jooji mu di julli ñaari rakkaa saxaaba yi ñoo ci dolli li ci des euh, su fekkee ne wax jooji moom ci boppam xamal na boppam ne du dëgg kooku alhamdulilah doy na amma nag jéem leen a convaincre ci dalil loola moom bu ko man ndax ku lay wax ne lu ma gisul ci alxuraan damay jàpp ne bokkul ci diine ji maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amuti wax ci diine ji kooku mënoo koo convaincre ci lenn mënoo ko indi waxi keneen moom kay lim wax ci boppam moom moo amul dalil ku ko laajoon ne ko loolu saxaaba yi ñoo ko ci dolli fan la koy jële ndax moom ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo gëm loolu ñoom gëmuñu xadis kon ñoo sukkandiku ci benn riwaay buy wax ne lii saxaaba yi ñoo ko ci dolli amut fu mu koy jële amut lu gën a wér amul lu gën a wér ak tawaaturul amali yi maanaam loo xam ne xeetu lislaam naka jekk moom la ñuy jëfe ba agsi ci sun jamono ji boo jëloon jàkkay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala nga jël kaaba gi mi màkka ba fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee ba léegi nit ñaa ngi julli seenu julli dëkkut ne yonent ba doon jullee amul ay jamono yoo xam ne dañoo toog ba mu yàgg ñeneen nañ toog weer woo xam ne dañuy noppal ay nit dootul julli déedéet julli ga noonu la jokkoo ñenn ñu ci nekk di roy ca ña leen jiitu maanaam saxaaba yi di roy ca yonent ba taabi'oon yi ñëw roy ci saxaaba yi atbaau taabiin ñëw roy ci taabi'oon yi boroom ngir yi ñëw di roy ci ñañ fa fekk seeni taalibe ñëw di leen roy ñooñu seeni taalibe ñëw di leen roy ba agsi ci nun ñii maanaam mbir mu jokkaloo noonu ci jëf dalil bu ko gën a wér moom amul ala kulli xaal kooku moom jarul dellu ci ay riwaaye ñi naan diw sàngama ko solo ci biir téere wala ngay dellu ci alquran naan bi bii la wax waaye nii la ko yonent bi doon defee nit ñi nii lañ ko toxale ci moom ba agsi ci noonu ci jëf nga xam ne bu àndul ki wax it jëf ji moom noona la loolu lu ko gën a leer ci àdduna amul kon ala kulli xaal ñooñe moom bul sonal sa bopp ci convaincre leen ñu réer lañ ñu sànku lañ eh, xanaa ñaanal leen borom bi tabaraka wa taala gindi leen ñu mën a dellusiwaat ci diine lislaam waaye dañoo jaar ci weneen yoon woo xam ne moom weneen la ala kulli naam jazakumullahu xayran ci tontu yu leer yi te ànd ak xam-xam ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla sàmm la yokk sa xam-xam gën laa kàttanal ba nga gën a mën a wubbee jaami borom bi subhaanahu wa mbokk yi doon déglu ci suñu émission fatawa kon foofu lañuy tàggoo ak yéen ba beneen àllarba incha allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عندي mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ci feggo Lo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak di al mën nga yónnee sab laaj si numéro whatsapp bu fatawa rajo Leeral FM numéro bi di 78 179 27 59 78 179 27 59 numéro bi képp ku yónnee sab laaj ci whatsapp bi dinañ si jot jërë ngeen jëf kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine يميني لو عندي عمر يكفيني نشرت تعاليم